salaamu salaamualeykum rahmatulah taalaa barakatu man la Ibrahima Ibou Cissé ñu gën ma xamee Pape Cissé maa ngi dëkk euh, Mbacke juddoo fi euh, nekk cadre ci ministère des finance di taalibe Murit di doom ci dëkk bi. xanaa balaa ñuy tàmbale dañuy jaal ñi nga xam ne bakkan yi fi rot yëpp di leen jaal di ñaan suuf sedd seen kaw. di woote tamit jàmm ci dëkk bi parce que Sénégal jàmm lañ xam ginnaaw bi ñu wootee aussi jàmm ci dëkk bi dañuy woote ñaari pàcc yëpp lu si mel ni gouvernement bi lu si mel ni aussi ñi yëngatu di manifester wu di leen wax ni réew bi ñoo ko bokk di wax ne na si ku nekk xool naka la mën jàppale ba réew mi dal am fi message am na message boo xam ne yaakaar naa ne tamit gouvernement bi war na ko mën décrypter ba mën xam lan mooy tolof tolofu xale yi lan mooy tolof tolofu dëkk bi pour mën si indi saafara parce que loolu lu important la tant que saafara wuñ jafe-jafe yooyu dina nekk loo xam ne lu jafe tey ñoo ngi manifester ñoo ngi yàq alalu jàmbur bi nga xam ne xëy na yoram newu si ñoo ngi toj ay boutique di dévaliser violence boo xam ne Sénégal xamu ko donc yaakaar naa ne jamono jiñ toll nii ñi jiite réew mi war nañ mën toog. am si jàng-jàng boo xam ne war nañ mën xalaat lan mooy solution parce que looloo tax tamit ñu fal leen sa dëkk suñ nekkee ci ay tolof-tolof di ko wone war nga mën proposé des solutions yoo xam ne dinañ mën génn ci loolu di woote encore une fois àlla la sérénité di woote une encore une fois au calme loolu tamit ñoo ngi si ñaan waajur yi ñu jéem a xool ñoom tamit nan la ñuy waxtaan ak seen njaboot parce que mbir mi nag du yëfi gouvernement bi rek du yëfi opposition rek mbiru ñëpp la il faut que ñëpp jàpp seen loxo ñu toog ñu waxtaan ndax dëkk bi am dal xeex baaxul violence amul benn njëriñ. soo xoolee ñi génn ay xale yu ndaw lañ ñi ci gaañu ay 17 ans lañ lay wax ay 20 ans donc xëy na ñiy nekk di sànni xeer sax tey jamono ji amaguñ ay carte électorale mu doon benn message boo xam ne c'est important gouvernement bi mën ko décrypter tey xëy na y a eu beaucoup de problèmes yoo xam ne xëy na population yi ñoo ngi koy jànkuwante Covid bi moo ngi fi métti na couvre bi moo ngi fi métti na sur le plan économie bi ñëpp xam ne effectivement am na ay tolof tolof yu métti yoo xam ne sénégalais yaa ngi koy dund donc je pense que loolu lépp su amee il suffit que mu am benn étincelle bu ndaw. mën na taal dëkk donc je pense que yuy demee noonu nit ñi war nañ si gën a mën bàyyi xel gouvernement bi gën si mën a bàyyi xel ñi jiite réew mi tamit gën a bàyyi xel ne njaboot gi yëpp seen njaboot la jéem a trouver le plus rapidement des solutions. ma yaakaar ni kilifa diine yi li ñuy wax seen wax ba léegi depuis démb ba tey benn wax la benn wax bi mooy. respecte diine gi beneen wax bi moo di nit ki na respecte moromam mu doon même sa doom sax sa nawle la donte yaa ko kilifa donte yaay waajuram sa nawle la am na lenn loo xam ne waroo ko man def ak moom dans la même logique aussi ñu jiite réew mi ñu war a xam ne sénégalais yi seen i doom lañ seeni nawle lañ donc loolu laa jàpp ne message boobu man gëm naa ne kilifa diine yi ñoo koy wax donc li si am mooy li may wax rek ne bu pàcc bu nekk muy côté gouvernement bi muy côté opposition bi ku nekk delloo si waat xelam mais li ñuy gën a laaj mooy côté gouvernement bi ñu xool yan solution la ñuy apporter njaboot gi yëpp benn gi la kilifa diine boo dem wax na ci kaw wax na ci suuf loolu la ku fa demoon tamit loolu la loolu la ñuy wax donc ñoo ngi leen di sant bu baax ñoom tamit parce que ñoo ngi dox seen waar di bay seen waar ci lool ci ci wàllu département bi euh, gis nañ ay euh, ay ay ay quand tuuti changement sur le plan politique parce que am na ñenn ñu bees ñu ñëw ñi bees ñi ñëw tamit ñu si mel ni ñun ñu si mel ni ñeneen am na wax joo xam ne ñoo ngi koy wax te wax ji ñuy wax mooy tey su fekkee ne dañ bëgg defar dëkk bi il faut que ñun ñëpp ñu joxante loxo parce que am na si lenn loo xam ne du wàllu du wàllu état am na si lenn loo xam ne du wàllu maire am na si lenn loo xam ne waa dëkk bi yëpp ñoo si war a mën jàpp te man dama gëm ne tey fii ñu nekk ci dëkk bi muy dëkk Touba Mbacké muy Mbacké département Mbacké bi yëpp fi sëñ bi ganee àdduna mu yàgg ñu woon ay modèle yoo xam ne tey war nañ si mën sukkandiku pour développer dëkk bi kon gëm naa ne jarul sax ñuy seet à gauche droite nañ topp modèle yooyu modèle yooyu suñ ko toppee gëm naa ne dëkk bi dina am dina jëm kanam ñuy woo tamit bépp doomu département Mbacké foo mënta nekk nga nekk au Sénégal nga nekk à l'étranger xam ne Mbacké am na loo warook Mbacké xam-xam boo am indi ko ñu dolli ko ci am am boo am indi ko ñu jàppale ko ci waa dëkk bi doole boo am tamit physiquement nga indi su fekkee ne dañ ko soxla ñoo ngi ñaan aussi ci wàllu boobu nit ñi xam ne naxaate bi dafa doy ñëw jox nit ki saako ceeb jox ko xaalis su bës ba jotee mu votel la ça veut dire que dafay hypothéquer pendant cinq ans voire six ans ou sept ans voire même durée élection durée mandat boobu yëpp mu hypothéquer ay décision hypothèque dëkkam ci benn dix mille franc bi ñu ko jox ci benn cinq mille franc bi ñu ko jox loolu damay yee waa Sénégal damay yee waa Mbacké département Mbacké bi yëpp di leen wax ne li important mooy projet wala programme bi nga xam ne nit ki ñëw na war na ko tëral ne la man bëgg naa jëlee dëkk bi fii yóbbu ko fële ci nii laa koy doxalee lii ak lii laa siy def ba man egg fële donc loolu dañuy bëgg aussi population bi yeewu ci loolu jigéen ñi yeewu ci loolu ndaw yi yeewu ci loolu ku fi ñëw jox leen xaalis nga xam ne yaa ngi hypothéqué yow sa mandat pendant cinq ans pendant sept ans amul benn changement donc ñun li ñuy woote mooy bëgg nañ ñëw ak doomu Mbàkke fu mu mënta nekk fu mu mënta nekk ci àdduna bi ñoo ngi koy woo ne ko am na benn retour boo war a mën def ci dëkk bi retour bi nag ñu bëri dañ def ne toog ci dëkk bi xëy na mooy defar dëkk bi mën nga nekk aux États-Unis mën nga nekk ay Chine am ëpp njëriñ ki toog fii naan man damay defar dëkk bi li si am importance mooy tey ñooñu ñëpp ñëw ñu ñëw toog xool lan mooy jafe-jafe dëkk bi te gëm naa ne ñoo ngi siy gëstu ñoo ngi siy xalaat xam nañ ko xam nañ fi nu war a mën jaar pour mën trouver solution li ñuy wut mooy des solutions durables tey war nañ mën toog ci département bi kenn warul li fi faju di génn war nañ toog ci département bi war na mën am ay université war na am ay industrie parce que suñ rakk yi suñ doom yi nekk ay université Dakar université Saint-Louis yeneen université yi ñoom ay tolof tolof yoo xam ne nga xool en terme de statistique bëri na lool ñaata étudiants ñoo fiy jógee di génn bés bu ñu génnee daanaka dañuy torox tey métti ci ñoom donc gëm naa ne état bi ñoo ko si laaj parce que am na yenn investissement yoo xam ne état moo ko mën def donc ñoo ngi koy ñaan te xam naa ne doomu Mbàkke dinañ si dugal seen loxo pour yenn faculté yi pour yenn euh, formation professionnelle yi ñu mën ko defee fii ci département bi mu gën a woyofal euh, difficulté yi nga xam ne étudiants yi ñoo ngi koy ñoo si dëgg la xëy na ku nekk xëccoo ay ay ay euh, post électif poste électif yi benn la soit nga doon président conseil départemental wala président commune euh, nu mu tudd euh, maire wala yu xeet yooyu nomina poste nomination yi yooyu c'est le pouvoir discrétionnaire aussi du président de la république xëy na Mbàkke département bi bëriwul par rapport ak yenn département yi mais dama naan man sax lu weesu loolu tey am na yenn nomination yoo xam ne tey amul impact ci dëkk bi li am impact ci dëkk bi mooy tey ñu defar fi ay projet ay unité de production yoo xam ne tey waa dëkk bi dinañ si mën jëriñu xale yi dinañ si mën am liggéey jigéen ñi mën si développer yenn détails yi góor ñi mën si gis seen bopp et des revenus yoo xam ne tey dëkk bi mën na jural dëkk bi sax ay recettes yoo xam ne mairie yi muy mairie Touba muy mairie Mbacké muy yeneen mairie yi fi nekk yépp mën si jëriñu xam nga euh, loolu moom damay bàyyi waa askan bi ñu tontul ci seen bopp ndax nomination yi fi am yépp depuis bi gouvernement di am gouvernement ndax am na parce que jamono ji wax ak yow waa Mbacké ñooy xeex problème mu ndox lu toll ni département Mbacké amuñ ndox bu neex Touba pare amul ndox bu neex màggal suñ ñëwee jafe-jafe ñuy am war nañ ma dépassé loolu depuis cent 1960 ba léegi Sénégal muy depuis màggal depuis kañ nañ commencé di organiser màggal mais chaque fois problème mu ndax day am problème mu sanitaire day am parce que lenn dafa am dëkk bi dafa développé benn façon développé nit ñi yokk nañ façon yokk boo xam ne te infrastructure yi suivrul lu toll ni département Mbacké département man suñuy wax dañ naan lay district sanitaire moo fi am. des fois damay rus ñu naan non ñoo ngi inauguré benn poste de santé ma ne non man Mbàkke war na dépassé ay poste de santé donc yu xeet yu mel noonu day tax de moo tax ma gëm ne man nomination am na solo am na solo ci àdduna ci dëkk bi Sénégal gi yëpp parce que ay programme public ngay doxal mais waa Mbàkke gisaguñ ci seen bopp du ma niilis niilis mooy nga ñëw ne defuñ fi dara mais jàpp naa ne dëkk bi waroon na dépasser fii am na si wàll yu bëri yoo xam ne dëkk bi waroon na fi dépassé mais loolu su amee daanaka mooy du gouvernance boo xam ne c'est participative cest à xëy na ñoom ñoo tëju seen biir boolewuñ si nit ñi boolewuñ si neneen ñi ñooñu tamit toog seetaan leen moo tax ñun li ñuy woote mooy gouvernance participative képp ku am xam-xam muy ki jàng ki jàng alxuraan ki jàng français ñoo ngi lay woo ci liñ lay woo nga ñëw jàpp si parce que wóor na ne commerçant bi industriel bi am na si expérience boo xam ne war na mën jëriñ Mbàkke ki tukki am na expérience boo xam ne war na mën jëriñ département Mbàkke bi war nañ mën jëriñ Touba donc damay jàpp ne ñoom xëy na am na lu ñu def mais li des moo ëpp vraiment li def donc ñoo ngi ñaan tamit ci ñun li ñuy bëgg xool naka la ak ñi nekk ci bitim réew ñi nekk fii Sénégal ñi nekk Mbàkke naka la ñuy def tey ba ñun tamit ñu bay su suñu waar parce que suñu objectif mooy def une ville émergente def une ville industrielle tey damay wax ni autoroute bi fi nekk defuñ ko pour ay oto yi ndaw pour jógee fi ñëw ziyaare xalif bi delluwaat non dañ ko fi def pour mën a délocaliser yenn industrie yi nekk Dakar indi ko zone bu mel ni Touba indi ko zone bu mel ni Mbacké parce que suñ fi créer tey suñu zone benn zone boo xam ne zone industrielle lañ ko maanaam lañ ko mën tuddee zone boobu tey ñi nga xam ne dañuy importer rek pour stocker dinañ si mën a am lenn lu ñuy wax économie d'échelle parce que location bi Dakar zone yi ñuy loué dafay cher tey loolu tey suñ ko indee zone bi nga stocké fi wala même sax des unités de production dina mën permettre communes yi am si ay recette dina mën permettre nit ñi mën si développer wu am si luñ si mën yëngatoo te dina mën permettre aussi yow mi nga xam ne moom mbir moomu yow mi nga xam ne yaay businessman bi di nga am ay économie d'échelle location bi dina wàññeeku ci yow saa à dire nga transporter jële Dakar yóbbu Tamba nga jógee tu euh, zone bi dem Tamba mooy gën a yomb ci yow nga jógee zone bi dem Saint-Louis mooy gën a yomb ci yow nga jógee zone bi dem lu mel ni ay côté Matam et cetera mooy gën a yomb ci la preuve ñiy dem Matam autoroute bi la ñuy ñëw ba Touba continuer donc ñoo ngi ñaan tamit industriel yi nekk Sénégal ñi nga xam ne xëy na boor bi lañ nekkee di leen ñaan ñoom tamit ñu xoolaat naka lañ mën a profiter un peu de l'autorité pour développer zone bi parce que man gëm naa ne du du du du nit ki ngay ñëw jox ko benn mille francs muy ñun ñëpp muy cadre yi muy euh, borom xam-xam yeeg yooyu ñëw jox ko benn mille francs du loolu mooy régler problème bi lan mooy régler problème bi mooy xool nit ki bu ko jox jën won ko naka la ñuy nappee ñun ci loolu la ñuy dox message may jeexalee di euh, xanaa santaat bu baax kilifa diine yi fi nekk di leen ñaanal euh, ñu yàgg fi lool ci kanamu njaboot gi euh, di wax tamit waa département Mbacké am na yëngu yu fi yëngu yu fi am am na ay toj-toj yu fi am am na ay yàq-yàq yu fi am def naa ne loolu war nañ si mën xoolaat suñu bopp waajur yi xoolaat waxtaan ak njaboot gi mais njaboot gi tamit toog xoolaat seen bopp parce que fii ñun ñëpp benn lañ yàq alalu jàmbur suba xëy na yéenay bokk yéenay bokk juma wala yéenay bokk bokk añ bokk bool añ wala yéen bokk sëriñ donc loolu jàpp naa ne war nañ mën xoolaat suñ biir lenn loo xam ne manifester ku nekk am na droit manifester soo amee lu la naqaree war nga ko mën manifester mais ak loo manifester manifester bul yàq. alalu jàmbur donc maa ngi leen si woo ci loolu ku si am lu la naqari manifestel loolu c'est la constitution moo la ko may mais mën nga manifester pourtant sans pour autant yàq dara et loolu dama siy remercier jigéenu Ziguinchor yi manifester nañ yàquñ dara wax nañ seen naqar li ci important mooy njiitu réew bi war na mën dégg li message boobu war na mën comprendre message boobu décrypter ko te ñuy xaar moom tamit jamono ji ñu toll nii yan solution lay mën proposé parce que tension bi métti na wax ji bëri na il faut que tamit njiitu réew mi ñoo ngi koy ñaan mu wax ak njaboot gi dalal xelu njaboot gi pour ñu trouver proposé aussi des solutions pour ñu mën a dépasser phase bi jërëjëf.